am na benn baat bu ñuy wax haad yi tayibu haad yi tayibu haad yi tayibu baat bu garaaw gi doon baat am solo la bind ko sens def ko ci lu ñuy naan wala ci lu ñuy lekk sa njaboot lekk dootuñ dënguuti mukk loolu day jubóole ak njaboot haad yi tayibu baat am solo hadi tayibu baat boobu rek la hadi tayibu bindu ko 111 fois def ko ci lu lek def ko safar def ko ci lu lek wala ci ndox bi ñuy naan ku ci tokal ci sa bir rek ci fi jabar gogu dañuy doon benn jubbo ba faw dimbal yàlla ba ci yalla ande inshallah rabbi loolu pour wolé njaboot rek ko tax